asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu président euh, di nuyu ministre bi ak ñi mu àndal ñépp di nuyu ministre Samba si di ko jërigal jëf ndax Samba Sy jërëjëf sa liggéey la gis naa ne député yépp ñépp nag war nañ laa gërëm ndax yow bër bu set yaa fiy jiitu yaa fiy mujj kon yàlla na la yàlla fay ndax képp kuy liggéeyal réew mi rek war nañ koo ñaanal di gërëm itamit Moustapha Ba moom itam ak ministre de finance di leen sant di wax maaraay tamit jërëjëf parce que yaa ngi góor góorlu seetlu naa fu ñu taggee buske rek tagg la ma gëm ne gëm nga sa ministère te yaa ngi ciy góorgóorlu comme ni buske di def ak yeneen chef service yépp yi nga xam ne ànd nañ ak ministre bi ndax nag képp ku dëkk ci réew mi kuy liggéeyal réew mi rek war nga koo gërëm di gërëm itamit président assemblée nationale Moustapha Niass taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxawee na ko jiite député yi di sant bu baax di wax monsieur le ministre Dame dama la waxoon ne lu nit nekkul taalibeem du ci nekk sëriñ ndax bi nga nekkee directeur sa xam ko ak sa xereñ moo ñu indi ba fii ñun waa Nioro nag ñuy sant yàlla bu baax ci sa budget bi euh, ci xelaatu président de la république ndax centre bi ñu am ci Sénégal benn la may dellu siwaat rek ci li ma waxoon ci commission yi ñuy ñaan lu dimbale population Sénégal yépp nag muy gone ak mag ndax ku dimbale gone yi dimbale nga mag ñi ku dimbale mag ñi dimbale nga gone yi euh, lu gën a yaatal ci département Nioro ndax ñun dañoo yor ñetti frontières yoo xam ne dafa mel ni Gambie dafa nekk ci suñ biir nekk ci su wër ñu itam ndax soo demee Ngayeen Sabax moom ak Gambie ñoo frontière nga ñëw Kër ma ba Jaxu ak Gambie ñoo frontière nga dem Dramé Escale ak Gambie ñoo ak Sokone ñoo frontière euh, te fu nekk mën na ak Nioro 100 kilomètres ñuy ñaan comme ni ma ko waxee woon rek ñu gën koo yaatal ndax xale yi gën di toog ndax tamit am na foo xam ne 50 kilomètres ak Nioro ay xale duñ mën di ñëw Nioro waaye bu ñu leen yaatalee utal leen foo xam ne fii dañ fay nekk ñoom itamit di jàng comme ni école yu mag yi di jàngalee professionnels yi dinañu amal njëriñ. ñuy wax ne nag comme conseil départemental ñun dañ cee bokk ñuy suñ compétence tey tamit bigse bi yépp mu ngi bu jógee ko ci état bi ñun duñ joxe suñ alal alali nguur gi la ñuy joxe te lépp alali nguur gi population Sénégal ñoo ko moom ñuy ñaan ne même bu fekkee ne loo ko kër sax am na conseil départemental dina ko mën a luye ci ñetti communes yooyu li ci des euh, ministère bi indil ñu ay matériel équipement ak ay jàngalekat su ko defee dafay gën a yaatu ngir gën a jàng jàppale école bu mag bi fa nekk lii nag wax bi jarul guddal ñun li ñuy wax rek mooy wote rek la ñuy def man dama waxoon ne man wote rek laay def lu ñëw ma wote ko te wote woon nañ ko ci commission yi bon bii dañ koy wote rek am na ñoo xam ne duñ wote mukk waaye am na ñoo xam ne dañuy wote faw man ñooñu ci laa bokk man lu ñëw ma wote aw lu may laaj waxoon naa ko fi daaw fekkee déwén fekkee ren député Macky Sall laa lu ñëw ma wote asalaamaaleykum wa rahmatullah monsieur le ministre monsieur le ministre du travail chers collaborateurs des ministres chers collègues députés maa ngi leen di nuyu di leen ziar monsieur le ministre euh, nanga ma baal rekk ci sa cër ma nuyu ci sama sëriñ eh, du njureel gi ma ko jur sax waaye sëriñ Touba maam ma tax ñeme ma ko wax sama njaboot waaye nag nu bokk itam ma ba jaxu muy soxnaa mi Mbàkke di sama doom eh, ma di ko ziyaar bu baax di ziyaar sa cabinet yépp nag ñi ma xam ak ñi ma xamul bariwul ñu ma xam nag mais naa leen ziyaar rek ndax li ñu nekkaale ak sama doom jooju di soxnaa bi Mbàkke monsieur ministre ma di la ziar di la waxaat ni la li ma la waxoon en commission technique gis naa ko ci rapport bi man rapport bu ñëwee indi liggéey dama ci kontaan bu ñëwee indi ci wàllum immigration damay gën a bëgg mais bu ñëwee indi turu ginnaaw raay man mën naa seey fi ma toog ndax sama xolay bëgg surtout bu ma ko waxee ñu jël ko en considération te mu wóor ma ni les réalisation mën naa nekk jërëjëf euh, monsieur le ministre vous avez un ministère transversal yow mën ngaa dugg fu ne da ngay dugg jeunesse da ngay dugg éducation da ngay dugg emploi da ngay dugg formation da ngay dugg industrie donc ma jàpp ni potentialité bi ministère bii am dafa war a ubbeeku wax ak ñépp ànd ak ñépp pour combattre surtout ce fléau bi nga xamante ne nekk na loo xam ne léegi ñépp a ciy wax wax nañ ciy wax ci ba assemblée bi ce n'est plus la peine qu'on parle de l'immigration clandestine parce que ñépp xam nañ ni ministère bu jàll ñu wax ci donc monsieur le ministre gis naa aussi ci lu ma seetaan rek ci tele ak yu ma gëstu ni que ni confection masque yi wax dëgg yàlla am na taxawaay boo ci taxaw gis naa donc loolu noonu bu mu yem rek ci confection wu masque yi ci xale yi masque yi day jeex ñu jàll ci formation industrielle bi parce que suñu tenue militaire yi war nañu mën a créer industrie boo xamante ne ci xale yi lay déparé commencé di ko ñaw les blouses ah li nga xamante ne parce que nit bu nekk dëkk bu nekk ci formation professionnelle rek monsieur le ministre ci la mën a taxaw ba créer richesse dëkk ba nun du nu àbbi dara nun waa Italie boo sañsee ñu ne la ah da ngaa mën a sañse parce que Italie nga jógee seen veste yu rafet yi ay italien koy ñaw fexe leen ba sunu tailleur yi ci dëkk bi di ñaw ay veste yu rafet made in Sénégal ñu koy sol xam nga li ma la wax di ko créer yooyu mooy tax dëkk bi riche monsieur le ministre loolu xam nga fu ma koy teg damay jël benn agence ma jaare fa nuyu son DG dama ko waxoon keroog ni moo ami de valeur et de cœur El Hadji Maodo Malick mbay yàgg la lu yàgg dëgg la te man man samay xarit de quel que soit boor bu nu mën a féetee dama leen di noo nooloo tax ma téye ko ñi ma Facebook booleel ñëpp mënumaa tàggarleeg ñoom euh, monsieur le ministre anamo une large vision une très grande vision du président Abdoulaye Wade xam nga le jeune lu mu mës a teg rek am na lu tax en amont pourquoi ne pas lui de moyens de formation technique professionnel yoo xamante ne mooy jox ko valeur ak contenu bi nga xamante ne moom la ko Abdoulaye Wade xalaatoon a jox ndax éradiquer li nga xamante ne mooy ñaanaatu ak yalwaan ak maanaam jox ma ma jox la ji xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi nekkee ci dëkk bi monsieur le ministre yow loolu mën nga ci jàpp doté de l'ANAMO des moyens mu créer ay emplois mu liggéey wàcc ci terrain bi won nit ñi ne ANAMO am na njariñ parce que gisuma loo xamante ne rek le président Ablaye Wade créé na ko teg ko fii ci dëkk bi mu nekk loo xamante ne mën nañ cee duut baaraam ñu war koo mën a deelee gannaaw xanaa gën koo suuxat ndax l'état est une continuité monsieur le ministre di la féliciter di la ñaanal yàlla euh, di wax ne nit moom euh, li mu mën rek mooy góor góorgóorlu jàkkaarloog ñëpp parce que fii député bu fi nekk opposition comme ñëpp am ay xale xale yëpp lañ bëgg a former donc jàpp ci parce que loolu mooy tax euh, li nga xamante ni mooy chomage bi am ci dëkk bi gën a wàññeeku euh, yéen a fi waxoon 500000 emplois nag fexe leen ba yegg si ca dégg merci bien.